te fekk du yàq dara sa jaamu yàlla kenn waru laa yeddit ne waan jaabir jëlee nañ ci jaabir yàlla ko yàlla gërëm xaala mu ne innaa naka ñun kunnaa nekkoon nañ <coughs> yowmal xandax bisu xandax ndax firu di gas yonent dafa yàgg sonn sallallaahu keroog ba sàngoo ca ba maanaam ba demee ci xaaru xiraa xur na ca màkk dafa daan wéet di jaamu boromam ndax sit li xuree ci nekkee moo tax mbon dañ ko war a bañ dañ ko war a sip <clears throat> dañ ko war a contre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi xuree ci di jaamu ak tooñante yi nekkee bañ na ko lool mu ci xaaru xaaru xeraa di jaamu yàlla jibril fekk ko fa ne ko jàngal mu lu way jàng wala boog <coughs> mënumaa jàng ñu ñett ko dégg jibril ñett ko yonentu dellu këram sangu ngir làqutu jibril zammilooni zammilooni mu ne xadija sàngama sàngama ren lu màgg màgg mën naa jaaxle yonentu dafa jaaxle woon loolu dañ ci jàngee ne ndaw ma naa bañ a bëgg jàng wala bëgg mbaax yonentu ba ko jibril di jàngal lu mu def làqat waaye kilifa mooy dimbale ndaw ba njàng bi yegg Xadijatu moo ko dimbale dalal ko ba yonentu mën a jëflanteeg Jibril nga ne gis ne wutam xam-xam du yomb ndax Jibril mooy jàngalekat bi gën a mag yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy jàngkat bi gën a baax gën a sell gën a neex a jàngal yàlla mooy ki xam lépp mooy xebal Jibril teewul ba Jibril ñëwee njett na ko ba sonn yooyu yëpp ay leçon la yoo xam ne jàng ci histoire yi xew mooy ne mbaax kenn du ko ci lu yomb <coughs> mukk la àdduna mbaax foo mu jafe loolu rek ngeen si jànge waaye xale lu mu baax baax mën naa bañ jàng ndax xale la rek dafa sonn waaye kilifaam ñoo koy dimbale ba teg ko ci yoon ba ëllëg du ndaw ñu bëri buñ màggee dañ duñ gërëm seen kilifa yi duñ leen ñëwee xas gaa duñ leen gërëm parce que ba ñuy ndaw dañoo topp xale yi seen xel te xale xelam matut nekk ndaw am na loo def tey xalaatoo ko def xalaatoo ko def moo tax kenn du ko topp ci xelam ndax xelam matut keroog nag ba yenentu sàngoo jibril ñëw ne ko yaa ayyuhal muzammil wala yaa ayyuhal muddassir e eh yow mu sangu ci lal bi lal yu nooy du pour yow de te di nelaw du pour yow yow ñëwoo pour sangu li la war mooy jug dugg ci biir nit ñi nangoo dékku seen coono ngir xommat leen jëmee leen ci yàlla ngir génne leen ci lëndam jëme leen ci leer keroog bañ ko waxee mureekul lal yu nooy yi yu neex yi ñëw sa wetu soxna du pour yow keroog boobu la yonentu gëj a noppalu ba ba muy génne àdduna keroog la gëj a noppalu man ca mbeddi Màkka ya naan naan ñëw leen dugg ci diine yàlla ji Abu Lahab topp ca gannaawam naan waxul dëgg mhm. di ko sànni ay xeer ba muy nàcc mag naan ana ku may fat mhm. dimbali ma ma eggali mission yàlla Quraysh si sànq nañ ma ndeysaan xeet wu mu dem rek ñu ñàkkal ko kersa toroxal ko gàccaal ko tontu ko tontu bu metti foofu dana am lu ma fay wax mooy yonentu sallallahu alayhi laa yàllaa ko dig ne dana ko dimbale waaye daf doon dimbalikoo nit ñi naan ku may dimbale Fatma ma mottali mbiram yàlla xuree si sànq mi lam jaayanteeg waa Medina lugg ci lislaam rek de ak dimbale ko ba mission bi mën a yegg ndax lu baax lu nekk rek ay nit a ci jàpp yoo am jom nag yoo am gëm-gëm yoo am bëgg-bëgg yu bëgg mbir moomu teg ko seen karam na nga ña nangoo ñàkk sax ngir mbir ma dem loolu moo baaxal lu baax lépp waaye mbaax bu fekkee loo ci lekk ngay wut wala loo ci am yow loo ci def dara mbaax googu soxlawul kii mën a taxawal mbaax mooy koo xam ne dafay pare sacrifice wu ngir mbaax ga taxaw kooku la yàlla di tere nit ci mbaax saxaaba yu mel noonu la si doon wut ci njëlbeenam léegi na loolu daf lay wax ne yow mi nga xam nii dangay door a tàmbali xeggoo ci garaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa mbir bu neexee nga jottali ko nit ñi pour ñu jàppale la waaye nañ ci bëgg rek ku la jàppale ba nga mën a dëgëral sa baax ay waaye jamono jii de toog sa ruq sax weet dafa mel ni moo gën ndax nit yi yàqu gi ñu yàqu ak saay saay gi ñu saay saay ak jublu gi ñu jublu àdduna wan gannaaw gi ñu gën a wan gannaaw mbaax te dama yaakaar nit ku baax di fëgg buntab doomi àddina toroxal boppam la toroxal boppam la arab yi gaa doyen nañ waar hmm. waaye ñoo amoon kóllëre lañ buñ fasante yow kóllëre dara du ko fecc suñ laan defit dañuy def rek te yàlla tax hmm. ndax kenn du defar nit ñoom ba pare taxaw di ko bàkkoog di ko ndamoo wala di ko santaas ñoom loolu nekkul woon seen jikko ñooñu de mën nga leen tàllal loxo mm-hmm. ndax duñ la jéem toroxal ma ne laa tontu tontu bu naqaree waaye duñ la jéem a toroxal nit yi tey nag ñoom buñ la defaree santaas la wala boog ñu ñaax la wala boog ñu ñu loo def rek ñu ne mën <coughs> maanaam ñun daal dañuy dugal ngir am lu ñu si jëlaat daal comme kuy commerce moo tax nitu tey ñàkk leen tàllal loxo moo gën waaye tàllal loxo loo xam ne mbaax la nga tàllal ci loxo ku baax mu jàpp ci damay loolu lu baax la yonentoo ko ñu ko def amut <coughs> dem na ba xam ne ci ñaar fukki at ak ñett nga xam ne yàlla nee ko jugal noppaluwut ci benn yoon tàllal na ci loxo arab yi ñu beccingal ko gàcceel ko dem na taayif pour ñu dimbale ko loolu rek la jubloon pour ñu dimbale ko te pourtant yàlla dig na ko na ko dimbale waaye dimbale yàlla ci ay nit la koy jaarale ay nit kese yàlla bu la bëggee dimbale daf lay ommatal ñu la bëgg dimbale loolu mënu see ñàkk moo tax yonentu sallallahu alayhi wa moo gën a baax ñëpp yàlla dimbalewul ko ci boppam kese de wabil muminina waaye wabil muminina yàlla moo la dëgëral ci ndimbalam ak ci way gëm yi ku yàlla bëgg a dimbali rek andil ko ay soldaar yu ko bëgg a jàppale te rek tax xanaa yàlla may loolu ñu ñëpp yonentu loolu la ko yàlla defal dem na taayef ko <clears throat> tontu ko tontu yu naqari na ko xanaa yàlla xamul keneen ku dul yow xoolal loolu yonentu ak rafetaayam yonentu ak taaram ah yonentu ak personnalité nga xool ko naan ko xanaa yàlla xamul keneen ku dul yow léegi yow kan nga soxla kon léegi ndax koo taaj taaj yonantu mu nekk ci ron yonantu léegi kan nga soxla teew ñu ne ko ay mu yónni ko xam nga ko yoonam métti na de bu jógee fa fekk sànni nañ ko xeer ba muy nàcc boole ko ak dof yi ñu di ko yuuxoo mu jógee ci noonam dem ci ay nit pour ñu dimbale ko ñooñu def ko lu metti moo war a delluwaat ci biir yi noonam lu gën a métti loolu nga jógee ci barab ndax noonoo nañ la def nañ lu ne nga dem feneen pour wur fa ndimbal ñooñu def la lu gën a piir nga war a delluwaat nag say noon yi nga doon daw ku am bañam rus rek mënul loolu maanaam loolu dafa métti ci xol yonent su dund na ko gannaaw bañ ko waxee jugal noppalawut dund na loolu <clears throat> bana dëkkam bi mu gën a bëgg muy màkka dem gàddaay dem Medina bañ demee Medina ay feebar rek lañ fa nekkee woon ndax miinu ñoon climat di woy rek ngir nam mu màkka yàlla yonentu ñaan yàlla yàlla génne mbas mi yàlla génne feebar ba loolu leen may jàmm waaye Medina fu naq di la woon ñoom nekkul ni dafa neexoon de mu dem Medina yaakaar ne dana am jàmm ñu fekk fa xeex moom fa la xeex yi moo tax mosu noppalu bokk na ci xeex yi xeex bii di xandax arab yëpp dajaloo yahuud yi fexe xiital arab yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa gu nekk rek ñi nga am nga indi leen dina nañ dem faagaagal Medina xalak ko mu jeex benn yoon mbir mi jeex ñu noppul moo gën ñuy xeex ak moom mbooloo par mbooloo <coughs> yonentu mënu dékk mbooloo moomu karaamam yàlla rek ak kawteefu yàlla rek moo mën a dékk mbooloo moomu waaye nit ak nit xelewul ñu xeex ak ñooñu سلمان الفارسي مم فارس ده كون نلي ده بني دلان هم نفخ ملان ده بني غسل ورد كي بنخ بدين من دوغي تبير تبي ترى لني نك ينوت نلولا يقلد يي غس ريا غناسون لول مو يوم خندق لكن جابر نين ين يوم خندق نكون نين إننا نكون نكون يوم الخندق بسبب خندق ما بني غس كاموغا نافرو دي غس faaraan mu gaar kudiyatun benn xeer sadidatun bu dëgër am xeer wu dëgër gu leen gaar xam nga booy gas mun ngaa jot kekk am barab bu kekk buñ jot mënuñ koo gas <clears throat> fa jaaw ñu dikk ila nabi jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sahaaba yi buñ jaaxlaan rek ci yonent bi daan ñëw fa xaalu ñu ne ko haasi lii kudiyatun ab kekk la aradat gaar na fil xandaxi ci kàmb gi lii ab kekk la mu ngi nii ci kàmb gi mënuñ koo gas fa xaayonatu ne ana man naasirun aji wàcci laa maa ngi ñëw foofu gas ko su ma xaawa mu jug pour gas yi xola wa batnuhu te biiram maasuubun luñ takk la bi xajarin ci xeex boobu mu ngi xiif bat jël xeer takk ci biir wa daa amul lu lekk ngir bëgg rek am kàttan gu mën a taxawee tuuti butit yi bañ a yëngatu tuuti biir bi dal laal xola xeex bu mel nii ngeen war koo dékku yonent bi amul lu lekk ba takk biiram ba xeex ndax yonent rek moo xiifoon jaabir ne wala bis naa sax nañ salaasata ayaami ñetti fan yoo xam ne laa nazuuqu mosuñ zawaaqan ak mos maanaam ñetti fan yoo xam ne lekk dugg suñ biir te ngeen war a dékku xeex xam nga ñu yàlla leen dimbale rek <coughs> waaye lii bu doon dimbale yàlla faagaagal nañ leen bu yàgg ñetti fan yoo xam ne amuñ luñ lekk te ñu ngi war a gas boole liggéey xiif di la jàngal ne njëlbeenu lislaam njëlbeen gu metti la waaye ci njëlbeen gu metti boobu ci la taar bii feeñee dem ba ay nit di kaalaw dégg nga lekk ba regg dégg nga yore melakaan wu rafet di feneen yàlla ak yonantoom xamul fi yonantu jaar de gis nga lislaam boo demee ba liggéeyoo ci bu ci yàq ndax ña ko samp dañ dañ cee daj boo demee ba liggéeyoo ci bul cee yàq ndax ñi ko samp dañ cee daj boo bëggee wut àdduna bëri nañu wut àdduna te xamuñ dara jéemu ñoo sa woote sëriñ jéemu ñoo sax woote ci lislaam liggéey lañu def rek gëm seen bopp yàlla may leen àdduna jaaral ci yoon woowu yàlla mën na laa may waaye bun bu wóor lislaam ba di ko yàq ndax yonentu sallallahu daf cee daj lii yonentu daj li nga ci jàngee mooy bu xegsee sa loxo yow dañoo génn wàll ngir yàlla góor góorlu ci boo ci mënul góorgóorlu nga ba moom laay wax ne <clears throat> ki ma gën a jëppi mooy ku sol mbubam baax ba pare di def lu bon ci suuf boo demoon ba bon ñu la solalee mbubam lislaam war ngaa seexloo ci mbon boobu même bu dee defoo ko ngir yàlla tax nga def ko ngir respecté lislaam nga def ko ngir respecté yonent bi sallallahu ko ngir bañ a gàkkal baax ak ñu baax ndax ku baax bu nekkee ci lu bon xam nga lu muy ëndim dafay indi nit ñëpp yaakaar ne ñëpp a kenn baaxatul doo gëmati kenn soo gëmut boroom xam-xam yi gëmoo ñu baax ñu koy koy roy kan ngay déglu su boobaa ñëpp yàqu moo tax boo demee bañ solal la mbubu borom xam-xam boo bëggee bon simmi ko nga deman man bokkuma ci si saay saay yi laa bokk wala boog man daal nitu àdduna laa li may def man la concerné bu ma kenn xoolee xam-xam bu ma kenn xoolee njub su boobaa loo defati yow la sa diggante yàlla dégg nga waaye respecté nga diine ji respecté nga garaat bu màgg bi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko ñu ngi la ko doon xoolee mooy boroom xam-xam. boo demee bañ solal la mbubu jàngalekati alquran mbubu nitu diine boo demee ba nar bon simmin mbubu moomu nga delluwaat ci sa caaxaan ya nga nekk waree ne yow la ci lii nga nekk def li ngay def te bu bu mbubu lislaam bu ko bu ko askanoo. soo waa ngi xam ne benn waay rek. bu bu bu bu yàqu moo nekk di def ay defam wala benn waaye bu topp bakkanam wala benn nitu àdduna moo def di ay def def ay defam waaye nga ne jàngalekat alquran la nga wala nga ne kilifa diine nga wala nga ne nitu yàlla nga ba nit ñi xoolee la mbaax ngay def loo xam ne nii ku ko dégg wala ku ko gis te sa gémmiñ su ko defee yaa ngi xeex lislaam yaa ngi koy gàkkal yaa ngi dawloo nit ñi njub yaa ngi leen di ñaawloo njort da nga waral ba dañ yaakaar ne kenn baaxutul ci kaw suuf te ñëpp meloon ni yow kat <coughs> ñoom meloon ni yow kat loolu laa leen wax ne respecté leen mbubu yi ñu leen solal ngir nga respecté yonentu ndax dafa sonn ci mbiram nit du sonn ba pare nga ñëw di ko yàqal yonentu dafa sonn ci islaam balaa muy taxaw ñetti fan mosuñ dara mu yegg ci yow nga di ko kafe ngir yàlla yonent bi lépp looy def te baaxut askanee ko sa bopp bu ko askanee lislaam bu ko ci boole lii yonentu daj xam ngeen ne du ñëw ba yegg si loxo ñu naan diw mooy doomi diw lu mu ci wax noonu la lan mooy diw doomi diw ñun yonentu lañ gën a bëgg ci ku ne moom lañ gën a respecté ci ku ne moom nag moom kuñ faale sax moo tax ñu faale la kuñ bëgg sax yaakaar ne rek yaa ngi topp yoonam moo tax ñu bëgg la kuñ naw yaakaar na danga xaw aw ci yoonam moo tax ñu naw la waaye képp kuñ xam ne xawoo ci yoonu yonentu faale wuñu koo mën a doon waa léegi yonent bi lii mu daj yëpp moom ak i saxaabaam ñetti fan ñuy gas xamuñ luñ lekk xiif lool bu yonentu takk biiram ngeen jël mbir moomu mbir moomu ak seen loxo ngeen ciy déglu diw doomi diw mu leen wax ay waxi caaxaan ak waxi mbóosóor yu kenn xamut di yàq ngeen naan mooy doomi diw mooy doomi sëriñ diw kon nañ ko respecté luñ luñ ko respecté ku respecté wu yonentu ku koy respecté <coughs> bu leen fooyee lislaam bu leen fooyee diine bu leen fooyee yàlla bu ngeen demee ba bëgg a askan ne leen ko seen bopp xaw leen seen yoon jiine jiit bu leen ci topp kenn ku mooy yàlla ak yonentoom ku baax daal dañ ko respecté danañ ko gëm danañ ko xormaal ndax lan ndax te gi mu teg tànkam ci yoonu yonentu ak tegtal gi mu ñu tegtal li yonentu bëgg loolu rek la ñuy toppee nit waaye du doomi ku baax rek nga ku baax la nit ñi am nañ fu la seen àdduna doomi docteur nekkul docteur waaye ñoom doomi sëriñ rek sëriñ la loolu fu ñu ko teg teguñ ko fenn sax na <coughs> faaxase mu jël annabi yonent bi salaa sallam almeex wala sémmeñ nga fekk mu ngi lool fa dara ba mu dóor xoolal yonentoo yi liggéey fekk mu ngi xiif moo saxaabi danañ wax naan la in qaad naa nabiyu yaamalu fa zaaka minna lal amalul mudallalu su fekkee gis nañ yonentu si boppam muy liggéey ñun ñu toog kon sànku nañ fa dara mu dóor fa aada mu dellu kasiban di beeñ ahiya la bu nooy aw ahiya ma wala bu nooy yonentu dóor rek xeer yu mel ni ab beeñ nooy nepp daal di dagg fa qultu ma ne ko yaa rasulullah yonentu yàlla bi isan lii digal ma del bayti ci kër ga jaabir nee na ma xool yonentu gis nga mu ngi takk biiram bi ma gis ne xiif na lool ma ne ko may ma ndigal ma dem sama kër pour wutal ko lu mu lekk ndax yërëm na yonent bi ci xiifaay jaabi nee na ma ñëw fa qultu ma wax limraati ñeel sama soxna suhaylatu la tuddoon ne ko raaytu gis naa bi nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa dara joo xam ne maa fi zalika déet di nekk ci loolu sabrun ak muñ mu ne ko man daal li ma gis ci yonentu ci xiif mënuma koo muñ foo mu wutal ko lu lekk fa indaki ndax am nga cheyun dara mu wax soxna si ndax am nga dara lu ma mën a jox yonent bi sallallahu alayhi xam nga ñi amuñoon doole fa qaala si ne ko indi am naa shairun saaño buñ mën a def mburu waa anaaqun ak sikkit boo xam ne ni kër gi lañ ko yaree de fii ko doon yaree mën nañ ko rey xanaa togg ko loolu rek lañ fa am fa sabaxtu jaabir ne ma rendi alaanaqa sikib ba <clears throat> mooy doomi béy wa wa taxantu wa taxanat la woon mu dëbbu achaira saañu ba jigéen ji moo defar dugub ba dëbbu ko ba mokk moom mu rendi gàtt ba xataa jaan la bañ def allax ma yàpp ba nga fil burmati ca cin wa di jël yàpp wi dugal ca cin wa di ko togg nag ngir yonent bi sallallahu alayhi lekk su ma jiitu ma dikkal annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ajinu te fekk mooñ wa xadin kasara nooy na fekk soxna si mooñ na saaña ba bam nooy ña ngi koy def ñu war koo defar mburu nag dégg nga dégg nga yàpp wa ma ngi ca cin wa wala burmatu te cin ba beneen asaafi si diggante bos ya xat kaa xaw na tan di di ñor maanaam dañoo rendi gàtt ga defar ko jël yàpp dugal si ma togg ba muy ñor soxna saa ngi defar mooñ wa ba mu nooy nga xam ne léegi mën nañ ko defar mburu asaaf mooy la def cin bi ñoom ay mool lañ daan jël ñetti mool teg cin bi ci kaw mool yooyu mooy asaaf yi nga yàpp waa ngi waaj ñor man ñëw si yonentu nag pour xoo ko mu ñëw lekk bañ toggee ba muy waaj ñor moo xoo yonentu pour mu lekk fa qultu ma ne ko jaabir nee na ma ñëw ne ko to ay yi mun as ñam la lii ñeel ma mu ne ko yonentu defar naa ñam bu tuuti de fokkum jugal ante yow yaa rasulullah yow yàlla bi war a juróon ak benn góor aw rajulaan wala ñaari wala góor mu ne ko dama bëgg nga ànd ak benn góor wala ñaari góor ngeen ñëw sama kër lekk ndax yërëm na yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> xaal yonente ko kam huwa nu ñam wi toll fa zakatu ma tudd loo ñeen ko mu ne ko ah, benn gàttale de lañ rey ak ab saaño tuuti rek ma bëggoon ngeen ñëw lekk ko fa zakartu ma tudd loo ñu loolu kay lu bëri la tayibun lu teey la xul waxal laxaa ñeel ndaw si ne ko laa tanzii bul dindi alburmata cin bi bul teggi cin bi wala xubsa du caagin mburu mi mina tanwuri ci fuur ba mburu mu nekk ci fuur bi bu ko dindi na ko fa bax hatta ati ba ma dikk mu ne ko boo demee gaawal sa soxna nga ne ko bu teggi cin bi bu mu dindi mburu mi ci fuur ba na ko fa bax ba ma ñëw yow kay li nga wax lu bari la fa xaalit ne xuumu jug leen moom au lieu kenn ñaar mbooloo ma la woo moom ndaw si waxoon na ko boo demee fexeel nga woo yonentu ndànk bu mu fi andi ñoo xam ni kat ñam yi du leen suur nga di ma gàcceel ndax te invité ay nit joxoo leen lu doy gàcce la yonentu ne jug leen fa xaama mu jug almuhaajiroon way gaddaay wala ansaar ñu jugee màkk ak ñi nekkoon nit na ñëpp jug pour pour ji ndax ñoom ñëpp xiif ñeenti fan amu leen lu ngeen lekk suñu wootee lekk kenn du taxaw fa daxaltu ma dugg ale yaa ci ndaw si jaabir nee na ma ñëw sama soxna fa xultu ma ne ko woy hakki eh yërëm naa la waaye maanaam ndaw gàcc yonentoo ngi ñëw ak muhaajiroon ak lansaar yi mbooloo mi ñëpp a ngi ñëw xamuñ luñ lekk <coughs> xamuñ luñ leen jox tuuti la woon yonentu laa woo moom xoo na ñëpp jaa dikk na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal muhaajiruun way gàddaa yi wal ansaar ak lansaar yi woon maam ñi ànd ñoom ñëpp ngi ñëw daw si naan ko yow la yow la waxoon naa la léegi lii ko li nga def rek laa wax dama ko yollee wax waaye daal moo waxoo ñëpp xaalat si ne ko hal sa'alaka laaj na la dara xultu ma ne ko naam waaw ndaw si dal ndaw si ko laaj na la balaa muy woo ñëpp mu ko waaw laaj na ma ndaw si ne kon sama xel dal xaala يرنت ندخلوا دغلين ولا تداغتوا بين بوخنت يرنت دغلين سي كيرغي واي بولين بوخنت خم نو آه، بوخنت باخو نيكرانت باخو فجال مو كوماسي يكسر دي دم الخبز مبرما ما ام دي ديفار مبرو وي نالو مو ديف علي تي الله مو ياب مانام يرنت دفو او كو خم ني موي ديفار مبرمي كوك دي ديفار مبرمي ني سوت ياب موي موي سيدري ويخمر موي مور البرمه تشينغا وتنور اك فوربا اذا اخذ بو جيري منو سي xëy na day jël ci cin ci fuur bi dara jox ñu defar mburu waaye da koy muur na kenn du gis après tànk ci yàpp wi sotti ca mburu ma jox kenn mu lekk mais day muur cin bi kenn gisu ko fuur bi kenn gisu ko gaa yi di lekk rek muy fees rek xataa isa aqasa bu jël isa aqasa bu jëlee minu ci moom da koy muur wayu xamiru day muur al burmata cin ba wa tanuuru ak fuur ba isa aqasa bu jëlee minu ci moom wayu xaribu muy jege ila asaabi si sahabaam mu ngi defar mburu di sotti ñeex ak yàpp jox gaay ñu ñuy lekk di defar mburu di sotti yàpp ak ñeex gaay di lekk su ma mu dindiwaat falam yesal dañut yegg suru di damm ci mburu ma di jox gaa ñi wayu xarifu muy tànq ca ñeex mag yàpp wa di leen sottil hatta sa booba bañ ñoom ñëpp te pourtant tuuti wa baqee mu des minu ci moom maram ba ba bay dem bañ dindee cin gi cin ba ma ngay baax nam meloon fees tepp mel ni musul wàññeeku mel ni dara jógewu fa ci karaama yonent bi ci kawteef yonent bi la bokkoon wa baqee mu des minu ci moom fa xaa yonent ne ku lii lekkal haasa lii wa nga joxe hadiyu yonent ne lekkal nga jox ni ñi kado fay na naa sa nekk nit ñi asaabatum jot na leen majaatul xiif yonent ne ko na nga lekk waaye na ci mayee ndax nit ñi dañoo xiif متفق عليه حديث بن دبول هذا إن أريد الإسلام أصنعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته